asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax a baax en tout cas man de li ma gis mooy euh, réseaux sociaux yi c'est trop c'est très positif euh, li muy defar moo ëpp li muy yàq am na nag lu muy yàq ça dépend rek ndax euh, bi may wax ci pour son excellence bañ a yebal xale yi ñu dem Espagne di fa bay maanaam bi jàppale ji espagnol yi pour ñu suqaliku parce que affaire boobu Amérique da ko foon ba pare parce que cinquante états yi nekk Amérique daf ci y a des états vides nga xam ne ils ont besoin de la jeunesse pour bay seen fruit bay seen légume ak fruit te yenn états yi dafay sedd yenn yi dafay tàng ba mu ëpp seen doomu réew bëgguñu ko def donc dañ doon soxla ay étranger maanaam dëkk yi nga xam ne dañoo pauvre wala tubaab bi jaar euh, maanaam dunduñu ñu leen di jox ay green card euh, def loterie pour euh, ñuy ñëw récupérer jeunesse yi pour ñu liggéeyal leen pour ñoom ñu soqaliku moo tax ma ne leen woon keroog soxlawuñu suñu jeunesse Sénégal di dem ay Espagne wala feneen naan dañuy dem di liggéeyi foofu te war ko mën a def ci biir Sénégal. ba tax ma ni woon Ousmane na créé genre conférence euh, té débat pour la jeunesse sénégalaise euh, di leen dajale par deux ou trois mois waxtaan ak ñoom donc euh, on dirait aussi dafa mel ni dañuy déglu sama kàddu ñu ngi koy dégg parce que waa ji buy poser question lu tax Sénégal mënul am usine loolu dafay mel ni <laughs> daf may reeloo tuuti parce que c'est des choses cela va sans dire gouvernement yi fi jot a jaar yëpp été manipulé par la France te France lu mu wax maanaam Sénégal warul am usine parce que Sénégal bu dundee ñoom dañuy de am na usines yu bare amoon na fi kel euh, amoon na euh, temps Abdou Diouf amoon na fi ba ci usine ay Malikaan Icotaf usines yu bëri mais France dafa politique ak président yu fi jaar pour ñu tëj usines yi su ko defee ñoom ñu ñuy jaay seen produit Macky Sall ñëw defal leen loo xam ne bu ñu ñëwee sax indi produit yeeg yooyu duñu fay tax ñu ñuy rey di ñu ruiné ba pare am fi deux cent plus de deux cent cinquante mille euh, usines yoo xam ne ni yëpp c'est français te duñu fay impôt xam ngeen ci dara barki Dembo Ndiaye entre parenthèse orange ak ñuy bëgg a rey xaw ma nag yéen da ngeen a xaw a fàtte orange xaw ma orange crédit yi ñu ngi ñuy bëgg a rey kooku benn entre parenthèse la. parce que xam naa ni yéen a ngi déglu bu baax samay sama vocal yi bu baax macha allah te loolu la sax nag parce que man volontaire damay jóg am fu ma jàpp rek ci sama tuuti expérience bi ma am di envoyé ay vocaux su ko defee ngeen lekk seen xam-xam bu rëy macha allah bi ngeen am nga xam naa ne am ngeen xam-xam yaatu mais man damay ñëw rek di leen yokkalaat tuuti rek ci lu gàtt lu ma xam mais. yéen xam ngeen ni français yi ñoo ñu teree am usine ñoo tëj usine yenn yi li ñu amoon parce que ñun waruñu dund ba pare Macky Sall dawal fi nouvelle ordre mondial teg ci boole kaak seen français fa bu bon bi suñu doom yëpp di dee ci géej gi di dem loolu politique France la ñuy rey suñu jeunesse bi par jalousie dañoo iñaan ñu di dee ci géej gi mu sàkk suñu euh, jeunes yi maanaam jël indi seen bateau. dégg nga ñaata cent et quelques bateaux du ñu fay tax du ñu indil dara jën yéeg lépp ñu di koy sàcc di ko yóbbu dañ koy yéen xam ngeen ñun xam nañu lan moo xew jeunesse bii voté barki Dembo Ndiaye cinquante quatre pour cent mooy jeunesse bi bi xam lan moo xew li ngeen war a def kay mooy commencer exercer comme ni nga ko defee woote pour ubbiwaat usines yi mais ubbiwaat usine au fait ak ak euh, des très bon salaires aussi xool salaire yi nga xamee ni moom la ñuy fay jeunesse bi parce que tamit nit ki <clears throat> du jàng yore maîtrise ñëw di liggéey ngeen ubbi usine di ko fay loo xamee ni bu ci passé mu jeex loolu tamit da ngeen koy sóoraale parce que aussi dafa am façon salaire yoo xamee ni dañu war a xeex ak moom yokkal gars yi salaire nga nekk ca bopp ba di am yenn salaire yi ñu wàññi ko ba affaire bi équilibré waaw nga nekk ca kaw a kaw a kaw di percevoir yenn salaire yi ñu wàññi ko bu ñu ubbee usines yi ñu fexee ñiy dem di liggéeyi di mën a gis seen bopp ci salaire yi très important te loolu sax dégg naa seen benn politique euh, logement de de de de de de de fonction aussi. maanaam defal leen ay logement yoo xam ne seen salaire dina mën a fay euh, bu ñu dinañu mën a am ci logement yooyu noonu salaire bi mën a fay mën a fay courant mën a fay ndox wàññi yooyu yëpp dañ ko war a wàññi ñu mën di am lu nga xam ne mën nañ ci suturloo te ñu tiit waaw parce que am na lu nga xamee ni tamit le monde àdduna bi dafa ubbeeku ci àdduna amatul frontière parce que su fekkente ne nit ki tamit bëgg na liggéey ngeen ubbi usines yi tamit ñu nekk fa di liggéey te li ñu leen di fay tamit jëriñu leen dara bëgg caa boole bëgg fay kër gi bëgg caa boole bëgg fay courant bëgg caa boole bëgg fay ndox bëgg caa boole luñ ci lu ñu dépensé loolu yëpp dangeen ko war a toog ngeen étudier ko étude la étude la laaj parce que turu usine bi ubbi na boo yaa ngi liggéey mais la ñuy am balaa le quinze mu jeex loolu yanowul maanaa c'est décourageant loolu aussi maa ngi le premier ministre Ousmane Sonko les salaires des jeunes il faut ñu xoolaat que li ñu leen di fay dëgg la ça fait trop mal parce que Macky Sall li mu yàq dafa bari mais aussi yàlla bàyyiwuñu parce que yéen a ngi accélérer la cadence su bunt yëpp ubbeekuloo ubbeekoo macha allah mbay mi di jaar yoon di ñëw affaire su minières yi di jaar yoon impôts yi ñu koy fay ñuy éponger dettes yi di fay bori affaire yi dina équilibré ngeen bàyyi xel ci salaire u gars yi salaire fictif yi nga xam ni yu Macky Sall yi dañ leen ko doon dañ ko doon fay ñoo xam ne liggéeyuñu bu ngeen jëlee loolu nga xam ne mu ngi doon génn finance xaalis boobu noonu di dem ci ñoo xam ne ñu am na nu ngeen koy calculer waatee équilibré ko ñi nga xam ne dañuy dem di liggéey la jeunesse dina mën nañu fa jëlee salaire minimum ak maximum at least loo xam ne dinañ ci mën a faj seen soxla lii may wax ni c'est très important. tur boo yaa ngi liggéey ubbi nañu usines yi ñu ngi xëy di dem loolu aussi bu fekkee lañ leen di fay jëriñu leen dara da nga ciy gis koo xam ne day toog ba yàgg mu bàyyi seetaat yoon bi di wuti fu mu dem di jéem a génn réew mi te on doit faire tout def benn politique boo xam ne du ñu génn xale yi dootuñu génn réew mi nan dañuy demi Espagne wala dem Nicaragua wala dem fii dem faa waaw parce que adduna dafa ubbeeku bunt yi dañoo ubbeeku léegi dara umpeetul waaw waaw donc ubbi usines yi baax na waxtaan ak jeunesse bi ñu toog c'est très important mooy sama rêve mais bu demee tamit bu ubbi usines yi ba jeunesse bi commencé dem di liggéey politique de salaire ngeen toog ci étudier ko xool kiy liggéey li ngeen koy fay ndax mën na ki dund ak njabootam ndax mën nañ ci fay fi mu dëkk ndax mën na ci paas ndax bu defee loolu yëpp ndax dina am sax benn vingt mille bu mu denc économiser par weer wala benn trente mille bu mu moomal boppam wala déet très important maanaam régler problème am yëpp dese benn trente mille bu mu moomal boppam boo xam da koy denc réserve surtout côté médical beeg yëpp lii c'est extrêmement important li may wax nii waaw parce que yéen a ngi dooree ñëw je comprends étape par étape mais lépp étude la laaj ci sama xalaat bu gàtt dama koy yokk rek waaw wasalaam.